bokk ci jullit yëpp te jox ndigal mbokki taalibe yu murid yëpp ñeen fàtte ne ma ñu waxoon ci gàmm gi fàtte yi ñu ko sëñ Tuubaa bëgg yoon am ñu ko fonk woon nga xam ne ci jamono gàmm kenn du xaj ci dëkk ak njaareem ñëpp dañu def ko foofu ay ma fu la dafay jóge di ñoom mu waroo moo xam ne kenn du ko ma lijjanti kenn du ko attan waaye nee nag ñoo ko defagul ci ñun bëgg ñu weesaat ko defuñ ko sax waaye nag ñu gën koy fonkaas am na fi ñu bëgg a leeral loo xam ne man sama gàmm bopp bi ma baaxee def ci Touba moom man ko si ñuy defee moo ko daa defee rek amuñ ci lu ñu yokk amuñ ci lu ñu wàññi ndax loo man lépp daanaa ko ci def ñu ma dëkk ñëpp xam nañ ma ci loolu bu ñu bari si man lañu daa gàmmoo yéen gàmm yi am ci Touba yoo xam ne bii ci saan lañu it maa ngi soññ yooyee bu gone def ko fi te te nga bañ a wàcc sama daa moo di ñëw fii xëy na dundal ko fu ñu ko fu ñu ñu ko fa def sama kër bopp yi ma am gàmm njëriñ ji itam maa ngi ci sama gàmm yëpp def ko Tuubaa def ko ñu ko fa laaj ak ci jumaa ja su ñu dañ di ko def ku ne xam ne léegi maa ngi di soññ ñoom ñu yeesalaat loolee ko fa daa defi si ko fi defi si sama daara yi ma am yëpp ak sama kër yi teef ak yi ci muur daara yi ma am ci sow ak yi ma am ci penk yëpp fu ci nag gàmmukaay la boo xam ne ñu dëkkam ñoom xam nañu loolu ñoom ne ko ku fa gàmm ji da nga ko ni ko sëñ Tuba leen diglee ñu tax si moom bi sunnati bi kay léegi ndigal li may wax li may wax nag maa ngi jox ndigal nag mooy di kër yi nga xam ne dañ koo sañ ci def ko kër yi sëñ Tuba ci dëkk bu mën doon ci réew bu mën doon nag kër yooyu ñu ko dajoon ba def ba def fa kër ya liggéey ko mooy def suñu maa ngi di sant ñu def fa gàmm gàmm bu wóor boo xam ne dañ koy fonk nañu dajoon ba def fa kër ya ñu saxal ci ndigalu Sëriñ Tuubaa